mbokki Sénégal mbokki amateuru lamb yi olof Ndiaye dafa ne lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole bu ngeen déggee li ni mel na xam ne lamb sàjj na te ki woote woon le 21 mars ci terrain gaal gi ñu lamb fa lamb ju rëy gala bu mag ba amateur yépp kontaan moo woote waat ca terrain gaal gi le dimanche 28 mars 2021 tegalaat mbër yi 3 millions de francs CFA ma ne ah mbokki amateur yi Jax Wrestling production jaanam wàcc na saa yu amateur yi nammee lamb mu ñëw bégal leen saa yu mbër yi nammee fu teeku bëre mu ko tardé da ne amateur bu ñëw ca làmb ji da nga xam ne organiser nañ làmb ji dana am tribune am enceinte am pourtour képp ku bëgg a toog tribune seetaan làmb te kenn du la déranger ticket bi 10 000 la ku bëgg a toog enceinte jàpp sa njàmbur ticket bi 3 000 la ku bëgg a dem pourtour nag ticket bi 2 000 la ñu ne animation ba Mbayang Loum la ak Momo Ngom ñoom ñaar ñoo fa séene waata wàcc ci terrain gi comme nañu ko defee woon dimanche passé dama ne mbokki amateur yi